ziar ndaysaan xale yaa ngi noonu di lewaatoo Dangote les 2 Liss 2 laa xamul mooy kan Dangote laa xamul mooy kan combat bi ndaysaan ñu ngi noonu premier combat ba démarré na ndaysaan Liss 2 moo nekk ikiri Mouhamed Ali Dangote nekk kaay baax ikiri kaay baax la nekk ña xeex Dangote Liss Liss 2 Dangote Liss 2 Dangote ndaysaan ñu ngi noonu ña xeex mbaa dóor mu daan doom ña xeex laay laay la laa eh ña ndeysaan ma ngay xool entraîneur bi entraîneur bi ngeen ko dal booy bi xool entraîneur bi ci door mu daanu mbaa du am ndeysaan noonu liis dangote dangote liis ñu kaawo wala déet ardo laa ilaha illallah laa am na ku dem ardo kële moo ñu xeexaat askan wi nuyu nañu la ñu maroon Dangote Dangote suñu jamono lis na suñu ndey joor lis lis lis de lis daa ruux na de lis de Dangote Konte Babacar jërëjëf Assane Thiaw nuyu naa la Assane Thiaw maa ngi lay ziar ndeysaan TF TV léegi di ko gis ah ñaari xale yi bëre leen fi léegi bëre bu métti métti métti waaw arbitre nee na bëre leen sant da doon jaay lu jëree premier round dañu moo ñëwoon ginnaaw. première round dañ liir mooy dëgg. mais Liss na eh, Dangote kawo woon na. ndeysaan waaye may na ko fi toon bu récupéré. Liss na Dangote. waaw ndeysaan liis ñëwaatul liis le Dangote liis ñëwaatul liis ñëwaatul laay Dangote ciment bi ciment bi jaase bee saf ndeysaan ci bisu kon Dangote baax na xool ko gis la foo ngi liis xam ni Dangote benn yàq Dangote bëriw benn yàq dafay naqaree na Abdoulaye Seck soppe na bi maa ngi lay ziar man pour yow. somboon nañu ni seet Dangote. naa la sopp bi. ndeysaan lan mooy kenn du ki door ki daan rek la ñuy wax. liste. Dangote liste. Dangote liste. liste bi door. liste Dangote. naa la. géew moo ki nga xam ne mooy Dangote di jom la Fatma Dia dama la wootee ci bëccëg jaloo ma Fatma da Abdou Aziz Seck soppi na be yaa Rasulullah maa ngi lay seet Abdou Aziz i seen vidéo i seen vidéo aye ko door yi rek ca yow nga bëre dara amul ku may may ndox ma naan ay mbar naa man buur ku may may ndox ngir jëm yàlla yaa maa ngi melas buur nee na ku may may ndox jaara sama goro kooku mooy chéri Mounass waaye ko ko may nga delloo ko loolu la jàpp Dangote artiste jaara xaw ma day matte ma day gaje eh eh caxabal ba Dangote loolu baaxul caxabal bi dafa sore Dangote loolu baaxul bul Dangote Dangote artiste ko yootu waaye moom wala protégeant yi mu sol la wala jaara yéen a protégeant bi la booy génn de am avertissement kon protégeant la jaxamal encore dafa mel ni que mbarum tànk la boo xoolee ba tey bàyyiwul Sako Balde ndeysaan am na tëggkat bu ñëw de xaw ma nag ban mbër lay tëggal defe naa waa Pikine la ah. laa ilaaha illallah action ci biir la commencé. waaw ci biir la commencé. waaye waaye fekk mu sifflé. waaye waaye dafa mel ni fekk nañu génn jaar. waaw fekk mu sifflé. waaw dafa mel ni fekk nañu génn. booy Dangote mu ngi ngang rek. ah bi sifflé woon na. diggante Liss 2 ak booy Dangote. Liss 2 booy Dangote. suñu càmmoñ liis la suñu lay joor ma jaaxal mooy Dangote mooy xeex mooy dem ardo waaw benn yàq la da baax oh, benn yàq la ay laxay la la ah yoor bi baaxul ah, yoor bi baaxul cooki yoor bi baaxul ah, oh Boy Dangote liste. Boy Dangote. commencé di doxal Sam Production saa yu tëggee mu neex waa Pikine yi nekk ci diaspora bi bëriwul fa mais waa Guédiawaye bëriwul ci diaspora bi ndax gis nga seen commentaire eh eh maa ngi doon mu daan doon ci

ñaari dama xam ñaari xale yi nañu bëree combat bi dama yàgg te man mar naa xam nga xam nga buur nee nga sànq mbër mi dafa mar man la yow lay jàppale lay mar naa Fatick yow lay jàppale jili bu ma fontoo dama lay delloo say micro ah. ñaari micro ci poos takk na ko takk na ko takk na ko Dangote daan na liste Dangote daan na liste waa lii ban xeetu jël la ilaha illallah eh liste kay waay ah ay waay mais lii mais pour lamb kenn xam